bu ñëwee. nee na bu ñëwee moom tukki si fa. nee na da ko yónnee ndaw woolu ko. Moustapha nee na ku ñuy wax Moustapha di doomu Sidi Ali ca Njaasaan. moo daan nee na Moustapha Kunta moomu moo daan ñëw. ni ko góor gi nee na. ma waxal ma waxal ko doomam. ni ko ñëw na. nee na mu ànd ak booba Pape Seydi Hadj Malick si Maodo bu seexal El Hadj Aziz booba ñoom ñëpp ñu nga ñu nga foofa ca keer nee na bu ñu àndee ñoom ñëpp dem ziyaara ji góor gi nee na bu toogee tuuti nee na day daal di wax ni nañu ñaan